jërëjëf mbokku internet yu safoo di seetaan site bi di wasaare société ginnaaw ba ñu leen nuyoo ziar leen bu baax a baax tey ji nag ni ngeen koy gisee ñu ngi file ci place bu Wakaam xamante ne ni jot nañ information que rek dafa am gaal bu fi teer bu am ñu si bëree bëri ñoo xam ne daal dinañu ñàkk seen bakkan loolu nag moo sabab ñun waa wasaare ñu doxantu fii ci place bi fas yéene giseek ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo fi nekk ñu daal di ñuy jox ay information ci mbir moom mu naka rek la demee gaal gi kan la teer ak ñaata nit ñoo si daal di ñàkk seen bakkan damay daal di dugg rek giseek ñi nga xam ne ñooy liggéey file ci place base bi ñu daal di ñuy jox information ci mbir moom mu naka rek la demee sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa lay fay. tur bi naka la. Ismaïla Ndoye. Ismaïla Lo tey ñu ñëw fii la ci Mamel gannaaw ba ñu jotee information kan rek dafa am benn gaal boo xamante nii dafa defoon ñuy dem tukki ji daal di teer fii ndax man nga ñu indil ay leeral ci information boobu ndax lu wër la. waaw loolu moom dëgg la moom parce que gaalu clandestin yàgg na fi teer. waaw gaalu clandestin yu fi teer yëpp ñun dañoo assister àndax gendarmerie. quitté loolu bon man dem ba dama dégg information si guddi gi am na gaal gu teer bon après ñu dem ba fële gisuñu gaal gi mais le matin j'ai un ami qui est travaille sur le marine nationale ouais woo ma am lu mu wax ne ma gaal boobu ñu signalé dëgg la mais dafa ne au large si biir waaw mais am na ñu si dee mais ñi si dund dañ leen jël dugal leen si si biir bato marine bi mais gaal bi nag dañ koy takk parce que nit ku dee moom. ñoom duñu la amuñu yéene sànni la si ndox mi waaw parce que dañ leen tàkk gaal gi teeral leen mais côté Soumbédioune bi daal côté Soumbédioune bi je pense que foofu la gaal gi teer waaw mais boo gisee journalistes yi ñëw fi dañoo dégg au large de Mamel waaw plage bu Mamel la la xewee mais si kaw teerul fii waaw. non jotuma xam ñi ñuy faatu si gaal non sa sa c'est deuxième fois bële am na bële gaal bu teeroon fële la 2023 bi bon gaal boobu bi mu teeree tamit man maa ngi fi man fii laay fanaan sama place fii la ne bon bi ñuy ñëwee ñoom ay waa samba jun lañ ñuy dëgër bopp parce que benn responsable moo si daw ñeneen ñi taxaw bëgg a jël bagage yi ak moteur bi xam nga ñun ñi fi nekk sax mënuñu xañ suñu wërsëg bon man dama maa dem gendarmerie waxa commandant bi ñu ñëw bi ñu ñëwee am ñu làqoon motoor yi man maa génnee motoor yi waaw am ñu si jàppoon rek si responsable trois personnes waaw am benn xale bu ndaw bu ci nekkoon booy bi lañ tee mooy leen kii da ngeen koy waxloo boo leen ko waxloo rek dina leen wax lépp ñu waxloo booy bi booy bi wax leen lépp bon mën nag si si si là pour défendre wax leen lépp mooy ñi si bokk waaw ñi si bokk ñuy tëgg gaal bi waaw wax leen lépp après si lañ jëlee booy bi yóbbu leen booy bi dañ ko mujjee bàyyi ñoom ñu téye gaay gaay ba léegi ñu ngi tëdd correctionnel parce que dañuy rey ay doom ay doomu jàmbur parce que ñi ñuy jël seeni cinq cent mille huit cent mille xamuñu xam nga ay Touba lañ dëkk ay sëbi ñoom xamuñu géej quoi doo gis benn doomu lébu boo xamante ne mu ngi dugg ci gaale waaw loolu amul xam nga ñun daal ñu ngi ñaax suñu autorités yi domaine gendarmerie ñu teg ci place yëpp ay numéro vert yoo xamante ne képp ku gis loo xam ne mbooloo sax dina leen signaler parce que lii neexul quoi ngay rey ay doomu jàmbur xam nga tëggkatu gaal yi ñoom ay doomu xaraam lañ parce que ñoom xaalis jaral na leen lu ne te ñoom duñ si mës a dee waaw duñ si mës dee parce que xam nañ niñ koy defee. te des fois xamuñu sax zone bi dañuy wëral nit ñi wëral leen ci géej gi ba ñu sonn ñu teeral leen mais boo teeree dangay daw xam boo dawee perte nga sa xaalis waaw ñun daal ñu ngi ñaan gars yi booy nañ toog waa no booy xool senegal Sénégal am na liggéey. xam nga tey gouvernement bi mënul tëb tëb rek defal lépp loolu mënul ne. waaw nit yaa jéem a jaayante sa bopp pour liggéey commerçant yi di liggéey di dajale seeni i di ko dugal si gaal gi la moo tax mënuñu tagg billet ñuy wax visa bi joxe visa dafa métti mais visa buñ ko laata buñ la laataa jox dañu war a nit kiñ ñu koy jox. xam nga mais am na nooy jaaree Europe sans visa da ngay dem. xam nga da ngay dem quoi mais géej gii man de maa ngi leen di ñaax géej gii moom ku si dugg moom doo mucc géeju tey bi parce que marine bi bëri na yaa de drone lépp kenn mënul rëcc si géej gi waaw jamono ji nii nii képp clandestin bu dugg si géej yaa ngi si erreur waaw te buñ la jàppee correctionnel nga jëm waaw man maa ngi ñax booy nañ toog géem quoi Sénégal la fa neex waaw. ban bon démb si guddi ñu ngi ma informé ay ay ay une matin. bon maa ngi jokk ànd ak gendarmerie ñu dem ba nële. parce ñoom xam nañ ma gisuñu gaal gi. léegi après la matin si la ma sam benn booy buy liggéey si marine nationale bi ñu koy wax Pape Diop moo ma woo na ma gaal gi ñuy wax ni Ismaila dëgg la parce que ñun ñoo leen gis si biir géej gi am na ñu si dee nag mais ñu leen si bato bi ñiy muccu lañ dugal si bato bi waaw capitaine yi si boppam sax ñoom seen bopp dañoo joxe seen bopp dañoo jébbalu parce que mënatuñu rëcc si biir géej xam ñoo jàpp nañ leen. mais gaal gi nag exactement moom booru sëmba jun bi daal la ma wax ne ne foofu la lañ koy teeral affaire yooyu parce que ñoom xam ne moom xam na place bi wóorul fii boo fi teeralee gaal rek gaal gi day këppu si kaw gars yi dañuy ñëppay dee xam noonu la demee. mais gaal gi ko. teeralaguñ ko nag teeralaguñ ko mu ngi si biir géej. waaw mais jàpp nañ leen. ndax Ismaïla moomu jot na la wax non jotuma koo wax nag jotuma koo wax moom lépp lu xew rek. daf mooy woo wax ma ko quoi parce que xam na ne moi je travaille avec la gendarmerie waa si wàllu clandestin waaw xam ma ah leneen ah leneen waaw parce que ma ragalu ma waaw man mooy loolu. bon message bi may lancé tey mooy booy mooy booy dañu war a xam ne Sénégal bi ñu nekk nii dafa neex ñaata étranger ñooy daw di dugg Sénégal ah ñu toog quoi nañ toog gém seen géem xam nga liberté moo gën loo gis barke Serigne Touba Mbacke waaw maa ngi leen di ñaax ñu gën a toog liggéey waaw tey nga liggéey ba am sa benn 2 million nga jël ko mais 2 million yooyu mën nga ko def ay millions nga jël ko dugal si géej gi nga jaare fa dee nga jaare fa dem ba mucc ba ba dem ba île des Canaries te île des Canaries boo fa demee da boo mënul fee mooy loolu foog nga tëb fee te boo demee mala espagnol la jàppee dañ lay teg si si biir si biir si biir île bi doog leen génne waaw bu leen soxlawee rek dippoot leen ngeen ñëwaat senegal waaw kon loolu jarul dem quoi wooy maa leen di ñu géem toog fii Sénégal fii bàyyi liggéey liggéey bi waaw man bu doon dem Espagne rek man 2006 suma trois frères ñu ngi Espagne 2006 te bi ñuy dem si boppam clandestin sax xewagul te booy tey bi ñu demee ba ñëw dañ seen jarbaat bu kenn dem si gaali waaw xam nga te booy yëpp kenn demul ci gaal yi mm-hmm. kon gars yi ma ngi leen di ñaan quoi te yàlla tax ñu toog xam nga dimbali seen bopp dimbali seen yaay am ñoo xam sax seen yaay sax xamuñu sax ndax dañuy dem mm-hmm. xam dañ toog te yàlla tax quoi liggéey liggéey bi oui. d'accord merci beaucoup. bi ñu lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay mm-hmm. tur bi naka la. Ibrahima Wade. Ibrahima. d'accord Ibrahima Wade dañu fekk la fi la ci place bu Ouakam gannaaw ba ñu jotee information que ne am benn gaal bu fi teer am ñu si bëri ñoo xam ne daal dina ci ñàkk seen bakkan lan nga ñu mën a jox ci ay leeral yow mi nga xam ne yaa nekk fi bon man bi ma déggee information démb si dama dem gendarmerie Ouakam def foofu sama déclaration parce que la fois passée amoon na benn gis nga gaal wala ne fii la fii indi na woon deux cent personnes mais gaal bi bu ma ko déggee effectivement dama jóg dem au niveau de gendarmerie Ouakam joxe fi sama déclaration parce que maa ñoom dañuy liggéey fii si géej gi. bon gaal gi nag sori na sori boo xamante ne dem na ay 3000 pieds si biir géej ay 3000 pieds parce que ñi fa nekk ñëpp dee am na nag ñuy dund. waaw si biir gaal gi mais nag il faut gouvernement bi taal hélico yi gars yi dem wari leen pour mën leen sauver ñu si des parce que ñi fa nekkoon ñëpp moom. waaw ndax xam nombre bi nga xam ne ñoo ko nekkoon ci gaal gi ak nombre bi ñàkk seen bakkan. boo dee xool gaal yi bu ñuy jël di ñuy jël ay 300 personnes 400 personnes ba 500 personnes mhm. ñoom dañ koy jël parce que boo dee xool ñu siy dund tamit parce que xam nga doo mënoo nekk si gaal nit dee nga nga koy xeeñ foofu parce que loolu da lay rey parce que boo leen àndee combat nii nekk si gaal nit ku dee mhm. doo tëddox moom da nga koy tëmbal biir géej mhm. voilà noonu la fa demee nag. waaw kon gaal gi nga xamante ni moom la ñuy wax teeragul mais ñi nga xam ne dund nañ ak ñi si dee yëpp ñu ngi si biir gaal gi boobu ñoom ñu ngi si biir gaal gi mais il faut gouvernement bi jóg si del ILISCO naaw ba biir géej ay 3000 pieds dem seeti leen mën leen sowee parce que fu mu nekk sonn nañ waaw gouvernement rek moo si mën dara amul beneen gaal bu mën a daw distance boobu noonu parce que gaal bi nga gis dafa doon dem maare ay Guinée Bissau lay jógee waaw mooy ñu ko gis voilà noonu la fa demee waaw hélicoptère rek moo leen mën a sauver ñu mën a génnee gaal gi xool fan la déparé hélico mhm. rek moo leen mën a sauver te loolu il faut gouvernement bi mu taxaw si médiatement mhm. waaw fu mu ne soxla nañ ko quoi mhm. il faut mu taxaw te nag gouvernement bi maa ngi leen maa ngi leen di gën a ñaaxaat place boo leen gis mu yaatu ñu fay liggéey ay gaal jël leen ay nit yoo xamante ne dañuy toog parce que foofu la ñuy encaissé personnes yi nga xamante ne ñoo war a jël mbëkk yi. gars yi bu leen dem géej amul bànqaas ñun si géej gi leen nekk man côte bu ma nekk nii booy dem booy dem Amérique fii ngay jaar booy dem Espagne fii ngay jaar mais léeg da ngay gis ay gaal yoo xamante ne da nga yaakaar ne ay gaalu lañ mais duñ ay gaalu marée parce que gaal yooyu bu ñuy dem bu ñuy dem si mbëkk mi dañuy dañuy jël ay mbaal yebaale ko si gaal gi léegi contrôle de mer yi bu leen gisee ñoom ay mbaal rek la ñu won parce que loolu bu ne la man damay napp yow loo si man mënoo si dara mais il faut gars yi xoolaat seen bopp quoi parce que gaal déparatul côte bii nii mbuur la ñuy déparé jëm Casamance jëm ay Sendou foofu noonu il faut nag wax dëgg yàlla gars yi taxaw si bu baax parce que jeunes yaa ngi dee lii du yoon da ngay bëgg a lekk yabay sax ñi daan jàpp yabay bi sax gisatoo leen loolu tamit baaxul na si gouvernement bi jóg. voilà ndax la jox information bi jox na la ñaata nit ñoo ñàkk seen bakkan ci gaal gi wala. bon mool bi nga gis daal nee na ñëpp a loof ah. xam nga ñëpp a loof moom day métti. ñëpp a loof parce que am na koo xamante ne tamit mën na si dund parce que ñëpp mënuñu deewandoo waaw ñëpp na ñu deewandoo mais am na ñu si nekk tak sonno lool waaw mais nag na si gouvernement bi jóg jaar code bi bu ñu xamul yoon mi sax man nañ ma yëgal si hélico bi ma ànd ak ñoom waaw ma mën leen guider parce que ñu ñooy guider yi yow doo yore sa benn genre bato rek nekk si biir di patiri te xamoo fan la code bi nekk fan la gars yi di jaar il faut nga xam ko il nga jox ñu ko xam ñoo xamante ne Wakaam am na ay mool Yoof am na ay mool Ngor am na ay mool mais dina leen ay Zodiac ngeen teg ko fay frais yi fay commission yi waaw. sànq bi ngay commencé dégg naa nga ne am na gaal gu fi teeroon aussi am na ñu si ñàkk seen bakkan gaal googu nombre de personnes bi ñaata la woon. bon boobu sama kanam la teere il fait quatre heures du matin gaal baa nekk ne commission bi ñoo ko dagga gaal bi keroog bu muy teer fii la teer bon gaal boobu tamit yëpp na ay deux trois cent nangam personnes ay jigéen. ay jigéen waaw. gaal boobu tamit yem na parce que heureusement man maa ne ko teeral fii sax parce que boobu fii amoon na suuf man maa ne ko teeral fii mu ñëw fii teer après ñoom ñëpp ñu daw. mais jot nga gis ñi si ñàkk seen bakkan wala. non non non non gaal boobu moom daw na ñetti fan si biir géej gi. mais kooku da leen doon nax da doon teg dil quoi moom da leen ku nekk 500000 ñi 400000 ñëw ba fii wëndaalu biir géej gi ñetti fan ñëw ba fii teer mm. waaw. Mm. non kenn ñàkk si bakkanam alhamdulilah. voilà bon gis nga gis nga gis nga Sénégal dafa doy waar benn doy waar boo xam tey jii da nga doon àndax nit yàlla dimbali ko mu fàtte la mm-hmm. waaw tey da ngay àndax nit ba màgg yàlla yàlla def ko xéwal mu am oto mm-hmm. nga fàtte sa morom gis nga moo tax ñëpp bëgg amandoo mm-hmm. ñëpp bëgg amandoo gars yi nag bu ñu amee nañ dimbali nañ xool ñu démb ñi ñu bañ a dugg si gaal gi quoi waaw parce que loolu rek la Sénégal dara yàqu ko li ko yàq mooy siisante bi mhm. siisante moo baaxul boo amee dimbalil sa morom loolu moo waral gars yi di jël mbëkk parce que tey da ngay ànd ak nit mu tekki mu bàyyi la si biir mhm. di dawal oto wala mu am kër gu rafet ba pare bàyyi la si biir yow it da ngay xalaat mhm. kii nan laay def ma topp ko voilà mais nag yàlla na yàlla def jàmm gars yi bu leen jëlee ci gaal gi senegal am na liggéey nañ liggéey góorgóorlu la gars yi nag nañ dimbali waate surtout waaw. fii moom wax dëgg yàlla bëri na risque bëri parce que géej la man moom maa ngi si géej gi man moom si la dama fi yoroon kabaan di daan sama doole di dimbali samay waajur yàlla dogal usine bi ñëw na ñu jox ñu benn diire ma toog fi di ko fi xaar ba nëga nii mënoon naa uti leneen mais du ma ko def parce que am na ay xale yu fi ñëw du fi sangu man maa leen naan jaaral ni jaaral ni voilà man loolu laa fi nekkee quoi waaw ba ci gaal googu nga xamante ne nii ñu ngi naan am na ay nit ñu ñàkk seen bakkan am na ñuy dund tey ba amoon message booy lancé jëmale ko ci nguur gi ban message lay doon. bon mooy nguur gi am na ay hélico yu mu gaare hélico yi mais nañuy pateri mais tefes bu nekk nga xam ne gaal foofu lay départ nga teg fi ñoo xamante ne dañ koy saytu ba pare di leen fay wala fu mu nekk nii gisatoo mool buy jàpp jën mool yëpp dem nañ tefes bu nekk boo fa. bateau yi ñuy wax ne na leen arrêté Sénégal mën na liggéey ay bateau yooyu tefes bu nekk mu def fa benn bateau deux cent jeunes mën nañ dem si bateau bi di liggéey di napp jën di jàppa ah mais loolu na ko gouvernement bi def Ousmane Sonko na ko def ah, ah, ah président Diomaye Thiam waaw Diomaye ñëw na fii fay Diomaye non non sama maam c'est que moo sant Thiam quoi waaw waaw man sama maam Diomaye la tudd quoi voilà l'essentiel daal Diomaye yàlla na ko yàlla jàppale yàlla ko yàlla jàppale mu liggéey dëkk bi jàppale jeunesse bi comme que moom jeune la moo wax Ousmane Sonko bu leen kenn yàqal yàlla na leen yàlla jàppale. daal wóoragul gaal gi ndax dina teer fii ak suba wala. ginnaaw mën na teer buñ taalee buñ taalee hélico yi may wax buñ defee ñaari tour dinañ gis gaal gi parce que gaal du suux gaal day yeb ndox rek mais gaal du suux waaw parce que am na ñoo xam ñu ngi jàpp si wet yi gaal mën na yeb ndox mi du wàcc ñooñu nag laay xalaat quoi waaw ñooñu ñu ngi si ndox mi ñu ngi lekk seen lekk yaa ngi dégg am nañ foofu ay ndox ñu ñuy naan mais am na ñoo xamante ne dañuy wàcc ba dee xam nga neer neer moo garaaw parce que da ngay wàcc ba wàcc sa butit voilà waaw ok yàlla na leen yàlla jàppale. jërëjëf mbokku internet yu doon safoo di seetaan site bii di wasaare société nii lañ leen ko waxee woon tey ñu nekkoon fii la ci place bu Ouakam gannaaw bi ñu déggee information rek ne dafa am benn gaal bu fi teer am ñu bëri ñoo xam ne daal dinañ ciy ñàkk seen bakkan jot nañu nag gisee ak nga xam ne ñoom ñoo fiy liggéeyee ñoom nag nee nañu gaal gi nag teeragul waaye information boobu information bu wër la waaye bu ci nguur gi jàppee euh, jël ay hélicoptère daal di koy yónnee bu ko defee ñoom dinañu euh, guider ñooñu ba gaal gi daal di teer ndax am na ñoo xam ne dund nañ waaye am na ñoo xam ne ñu si bëri ñàkk nañ seen bakkan ci gaal googu euh, kon ki nga xamante ni moo di son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre am ñu ngi koy ñaan kattan ba ñi nga xamante ni ñoo nekk ci gaal googu euh, te jot a dund ñu daal di leen sauver ndax gaal gi xamaguñu euh, kañ lay teer ñi dund ak ñi décédé ñëpp ñu mën nañoo ne jamono ji ñu ngi ci biir ndox mi donc loolu lañ fi jëlee comme ay information di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbokku internet taalibe sëñ Abdou Karim Mbacke bu mag bi jaajëf